maaleykum wa rahmatulah mbokk yi suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar tey nag yàgg maar boo gisee li ma sol nga xam ne maa ngi ci booru piscine bi parce que li tax mooy ah waaw ki may jël foofu laa ko fekk te foofu moo tax ma def nii xam nga Lakers moom boo bëggee dégg-dëgg ne may supporter Real laa leen di supporter ci wàllum basket te xam nga supporter Real du ay fo yow maar fooy supporter ah yow Manchester non doo ngaaga ponkal nga bokkoo ah. ma <laughs> wit yi bu leen kaañoo. <laughs> wit yi yàgg nañ def ay jaloole de. waa lool foofu am na. mais loo gis rek day jeex. loo saf day saf nguur day jeex. waaw te yàlla xam na ne ñoom li ñu paan dafa bari. li ñu paan a bari. waaw ah, amortisseur pono lépp lañ paan. <laughs> dig ma ko gën a leeral volant bi sax léegi dafa commencé yàqu daa commencé yàqu ah. kon bu ngeen di boo jógaat bëgg naa la. waay Babacar ñu ngi lay fay. mbaam nga jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax. naka dëkk bi. waaw moo tax sax ñu dàndante ni. waaw corona de moom. Hmm. rawatina xam naa ne ñëpp sonn nañ mais mbëri moom. parce que ñeneen ñëpp ñu ngi sax di ut fu ñu xaar matt. bay encaissé waaw mais mbër yi nga xamante ne moom takk ngeen mooy seen mbir. Hmm. boo leen gisee seen ay sunu ay dossier presque dañ koo classé. Hmm. kenn waxul sax état moom xelam sax demul sax. demul ci yéen ñun moom amul kenn ku ñu xalaat. mais est-ce que yëglu ngeen pour état. Ah, mais kenn yëgluwul. fii seen association. association bi mu ngi fi mais xam nga ñun Sénégal lañoo weex dunq sama ko jiite de. waaw mais. ne dinañ ci def ay. mais même ñii dem. Hmm. waxuma laa nga xamante ne defatuñu benn activité. Hmm. ñooñu moom yaakaar naa bu dee rek euh, gouvernement bi am na tolérance wala am na ay ñëpp a yem. Mhm. war nañu bàyyi xel bu dee xam-xamam fa moom war nañ bàyyi xel mbër bu baax a baax a baax. am na solo loolu nga pour mbër mais itam kon xanaa promoteur yi leen joxoon xaalis tamit war ngeen jaar ndax yow am na promoteur bu la joxoon xaalis. bu ñu waxee bi joxe na xaalisam. te événement bi dina am. waaw mais ba mu ñu joxee xaalisam xaalisam yëpp def nañ ko ci làmb ji. parce que dañ doon préparé juillet la ñu waroon bëre. waaw xam nga ne kon <laughs> xaalis boobu moom kenn waxatu ko. xalaa kay am ay nit rek Mhm. moo la ci mën a génnee mais mhm. xaalis boobu moom wax dëgg yàlla xam nga ne kenn waxatu ko mhm. te moom journée am dina am kon yaakaar naa mbër bi doon waaj mbër yi doon waaj wax dëgg fa yàlla man nag waxuma sama bopp man sant yàlla mais mbër yi doon waaj état war na leen war na leen xool xool si seen ay mbir am taxaw bu ñu def si ñoom. am taxaw bu ñu def si ñoom. Mhm. yow bu ba tey bu ma continuer sa combat ak moom depuis ba dem États-Unis yow yaa ngi Sénégal te eh, am nga fi combat dem fi eh, lu waral rek yow nga continuer toog ci reste ci réew mi. waaw mooy adduna moo jaxasoo rek ñun suñu bilaa yëpp man ba affaire bi di am nii corona bi di am man sa le 5 avril laa waroon dem France. Ah, pour préparer far affaire bi ñëw. Mhm. ba mu ñëwee tamit nii ba affaire yi. ñu bàyyiwaatee. Mhm. gars yi dañu bëggoon pour ma demaat. Mhm. mais comme que dem bi instant yi dafa compliqué. Mhm. ay def test fii ay wiiri fii mooy loolu. adduna daal instant yi wóorul. wóorul waaw moo tax ku si nekk rek. nga des. yem fa nga ne daal nga fa nekk daal man loolu laa gis. mais yaa ngi ci entraînement yi. non ñun bu affaire bi doon suba pare nañ. parce que damay fàttali gars sax ne leen euh, dina parce que dina am lu ñu wan nit ñi ci yow ci loo xam ne ci saal la loo xam ne ci din la moom euh, mais lii da avant première lay doon. Mhm. mais tey su ma ñëwaatee ci ker dama gis journal bi di suñu làmb titre mhm. wala ay journaux wala ñu sax di ko wax tey mu mel ni yow sa mag géejawaay yow géejawaay. Mhm. Serigne Ndiaye tamit Serigne Ndiaye géejawaay waaw. lu xew ak géejawaay yéen ak waa géejawaay. dafa tombé parce que ñooñu mooy làmb. xam nga ñu ngi combat yëpp rek. combat moom day tombe rek. Mm. du bi nga bëgg mooy am. ok waaw ah, toujours rek day tombe te foofu la tombe ñu ngi ñaan yàlla defal ñu réussir ci bis bi. Mm. xam nga naa Abdou Diouf mas naa daan giri. waaw. daan Ousa. waaw daan Brisli. waaw daan ñabali. non man yooyu yëpp garaawul man moom làmb awma ci poroblème boobu man làmb benn problème laa ci am mooy am naa bis. ma def li ma war a def. pour am ndam mais man yu ci bëri man du sama problème. du sa problème en tout cas am na ci fu ma jugee. Hmm. foo xamante ne bu kenn xamul it man xam naa fu mu toll xam naa nu mu demee. dégg naa la sax nga ne ma sursi nga am de. waaw sursi laa nekk parce que dafa am mbër yoo xamante ne tey jii man ba ma daanoo sax laa gën a jàpp ne nit ñi dafa am fuñ ma teg waaw parce que tey yaakaar naa képp kuy bëre war nga daanu. nga bëreeg sa morom ñàkk mu bett ñu bëri loolu rek dèjà rek. Mhm. dafa war a xam ne yow am nga effort boo wala redoubler dëggantaan mooy kenn séentuwul sa daanu. ku si nekk rek jàpp nañ ne yaa war a daan ñëpp xam nga lu ma la waaw moo tax nag ñun ñu bëgg a redoubler bi bu baax a baax a baax. pour mën a defarwaat daal. waaw sa combat mag taxawaat na diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye noo gisee boobu combat. waaw combat la rek ñoom ñaa ñëw ay grand yoo xamante làmb amatuñu luñ ciy gagné amatuñu luñ ci perte. coow lee fi bëri rek. Hmm. mais ñoom ñaar ku ci bàyyi woon tey jii làmb teew sa tur moom c'est grave bind nañ ko ba pare kenn mënu si dara. su ma la déggee est-ce que kon combat nar naa neex. non bu amatuñu lu ñuy prouver. non ñoom ñaar ay jour ay bisu takkusaan lañ combat bu neexul foo koy gisee. Hmm. combat bu neexul est-ce que mës nga ko gis. loolu c'est impossible. combat Balla daal faw mu neex moo. non ñoom ñaar seen ay combat day neex. du ñu mayante dara. bu njëkk mu neex rek ñooñu. waaw ñooñu ay grand la ñooñu moom ñoom ñooy làmb. <laughs> mais na nga ca taxawoon rib combat bu njëkk ba est-ce que bi yoon xalaat nañ nga melaat ci noonu. waaw giri giri moom saa waay mënul <laughs> budul am bis loolu moom taman duma ci nekk. booba da nga caa de ba xëppantasi bi fii yow ak ñoom Baye Ndiaye géew bi tàng jër. non yooyu yëpp woon le la <laughs> passé na. ah ah na waaye day ñëwaat de. waaw dina ñëwaat bu ñëwaatee tamit di nga gis lépp ne rek changé na quoi parce que loolu bis la woon rek xam nga nit moom am na bis yoo xamante ne bu jotee loo ci deful rek da nga koy réccu. ok tey bis boobu luñ ci xeeboon rek wala ñu ne garaawul rek wala ñu amoon benn benn kii benn négociation boo ci defoon rek après da nga koy réccu parce que day passé day passé nga perte wala dara mu metti ci yow. moo tax bis bu jotee rek. li mu laaj yëpp rek da koy def. da nga koy def lu mu méngool rek da nga dem ba jeex. waaw après bu paasee paase na ñun moom luñ jot a paase moom loolu fàtte nañ am na ñoo xam ne combat bi mu taxawee dañ ne Gris Bordeaux ay sens bari na ñu koy wax ci combat ma ak Balla Gaye bi yoon. Hmm. maanaam jàpp nañ ne moom combat rek mais Gris buñ ca demee Balla da koy daan. waaw làmb moom làmb rek man moom Gris moom ay waxam ma dama see sonn. Hmm. li tax ma sonn ci mooy mbër la boo xamante ne bëriwul lu nit ñi même bu ko nit ñi même bu ko nit ñi amul fuñ ko teg. waaw ñiy nekk ci làmb ay affaire yooyu. moom ay nawleem ñi muy dajal. waaw ñooñu xam nañ koy Gris Bordeaux. Ah. xam nañ ne du du nit ku ñàkk fayda nit la ko am ful lu muy def koo xamante ne ku jàkkaarloo moom di nga xamante ne kii du nit ku nit di ñëw rek jàpp di foowee quel que soit nag du ko ñuy foye waaw loolu mënul nekk. kon foye daal mënul jaaree ci ba léegi mosoo gis ku ko foye ci laam musul am. combat bi xalaatoo ko ci. déggoo li ma la wax mbër moo gis si làmb. Hmm. takkusaan jot na ñu humilier ko. Hmm. Gris Bordeaux doo gis humiliation mukk ndax gaynde la boo xamante ne moom yu bëri décision arbitrage lay doon ak ay affaire yooyu ñi ko mag ak ñi mu mag ñëpp. waaw ah, kooku jàmbaar la kooku yàlla daal làmb daal mi ngi noonu. ay sansam tey déggu roi des arènes mais daan na trois roi des arènes. ñun ñu dégg roi des maanaam. Oh? daan nañu dégg roi des arènes. waaw ñoo xamante ne daan na ci ñett yoo xamante ne nekk ñu roi des arènes kon kooku yàlla dañ ñu man mbokk ma koy ñaanal rek yàlla defal ko jàmm mais man mënutuma kaa yokk moom dara ci làmb. mënuma ko amul loo ko mën a yokk daal. fan yi am na ku ñu gis ci kii bi mu ci ci ci ci ci internet bi wala yu mel noonu mu génn moom ñaankat la nee na nee na dañ koy dóor mu dañ koy daan non yooyu moom du ma jox yooyu ay caaxaan la borom xam-xam la ñaankat la ci li ñu gis ñun wala li ñu dégg ci moom mu wax ko moom jàpp na ne mais yooyu garaawul ñooñu seen ay liggéey la ñuy def ay jàmbaar la ñu xam nga li ma la wax senegal boo seetee léegi liggéeyu sëriñ sëriñ lu ñëpp xam nañ ne wax dëgg fa yàlla moo fi gën a dox sëriñ sëriñ nga nekk fii di sonn nii. waaw pour nga xamoon ne Sénégal niveau biñ toll ci gëm sëriñ. waaw billaay yow mii tey tey rek boo kaalawu woon nii tuuti. Mhm. génn si internet bi léegi nga nax Modou moodu yéeg jigéen ñi xale yi jigéen ñi di nga lekk seen xaalis ba ñu jeex. kon nag gëm liggéey dox la bu génn bees. boo xamante ne gars yi nag ñu ngi ciy wan nit ñi. ñu ngi ciy wan gars yi nekk Europe ak gars yi nekk fii yëpp Sénégal ñu ngi leen ciy wan lu jéggi dayoo. seen niveau gëm sëriñ fi gars yi toll. moo tax doomu aadama yi tawakkal alallaahi nañu jiital yàlla suñu borom ci lépp xam nga ba détail yu bëri rek. parce que am na yoo xamante ne fontoo yàlla lay doon. mais waxuma ci nit ku taxaw di liggéey naan day daan kii wala kii man yooyu moom méttiwu man yooyu garaawul parce que xam naa ne seen liggéey moo ko laaj. mais yow ñoom si la ñu mën a garaaw garaaw lu mën si dóor nit ñi pour nax leen affaire yooyu noonu ci ñi ko nangu. mais yow dama gis kara nga statut ay photo yoo xam ne. di mel ni boobu dama doon fo rek. loolu loolu moom ay fo rek man laa koy jàppee damay fowanteeg ay gars yi nga xamante ne dañuy gisee affaire yooyu rek. mais lan moo maanaam lan mooy sëriñ kon yow su ma la laajee parce que yow jaar nga si daara sëriñ kon nan lay mel pour yow kuy ñaan. ñaan du am melokaan nit mën na nekk pisciniste wala nit di nekk commerçant toog si palaasam fekk. fekk euh, am na benn xam-xamu baatin bu nekk ci moom boo xamante ne war a yor na benn sirru ci alquran wala benn aaya mu am sirru bi wala turu yàlla bu ko nit jox mu am sirru bi teewul yàqulu ko mën na nekk menuisier mën na nekk tôlier mën na nekk fépp du ay affaire yu bëri bagage wala ay affaire yooyu mooy sëriñ sëriñ moom boo jàngee xam dinga xam ne mën na nekk ci yow mii yàlla dénk la lu nekk te gëmoo ko parce que sirru te gëmoo ko sa liggéey nga gëm nga nekk ci. maanaam bañ a utiliser loolu ko waaw bëri na ci quoi. mais sëriñ moom amul melo. yow su ma la déggee maanaam nga naan sëriñ sëriñ loog yooyu maanaam euh, gars dañ ko def mode bu bees ak yooyu est-ce que mode la wala ñoom est-ce que dafa am lu leen yàlla baaxee comme ni nga ko waxee ni non non na mën na yore comme ni nga ko waxee pisciniste bi ku nekk mën na nekk fépp na nekk fépp lay nekk mais yu si bëri yuy daw instant yi nii ci ci dëkk bi. Hmm. yu si bëri ay naxaate la. ay naxaate la waaw. boo te déglu yenn émission te si yeeg yenn affaire yi di nga ci dégg ay exemple yu bëri. jigéen ñi ñu leen ciy nax ñi ñuy tas seen ménage ñi nekk Europe ñu lekk leen xaalis bu dul jeex yooyu yëpp di nga ko gis façon arnaque la boo xamante ne Sénégal moom xaw ma kan lañ koy min ndax ñun bañ juddoo ba léegi ñu ngi koy dégg. ok détourné xale yi jigéen yi gëm sëriñ dem ñu détourné leen xam nga yooyu yëpp yooyu yëpp da ciy am. te rek doo xam ne ñu Sénégal du dëkku jaaxil am na ay exemple waaw yàlla moo wax ñu ñaan ko mu may ñu kon gars yi mën nañ ñaan suñu borom mais buñ buñ dem ci yenn naxekat yi te am na naxe naxe yoo xamante ne paas dem tuuba siyaar mag ñi fa nekk ñaanal leen ñaan googu noonu tey te ndax ñaan ko ñaan ñaanal koo xamante ne dafa texe dala koy delloo te ñooñu am nañ ci ñoom yaakaar nga dem toog seen xabru yi ñaanal leen ñu delloo la ko moo gën détails yu bëri. parce que du am solo quoi. du am solo. Mhm. yaa ko tudd yaa ne dem Touba wala Tivaouane wala feneen euh, ku ne xam na ne màggale ngi ñëw gàmmoo ngi ñëw fan yi dégg nañu ay coow ci dàq màggal gi wala gàmm gi wala ndaje yooyu ba mu jox fi yeneen polémique yow en tant que sénégalais en tant kuy seetlu wala ku nit ñu di déglu euh, loolu noo ko gisee. waaw Sénégal moom nañ Sénégal moom benn famille la ñëpp far koo ci topp tuuti rek ay mbokkam di ngeen dem ñu daje. kon yooyu yëpp pour man warul nekk warul nekk lu indi biir wi daal ay Touba Tivaouane état yooyu yëpp c'est la même sos man daal damaa gis ne bu coow amee rek y'a quelque chose. Hmm. waaw parce que Macky Sall bu soxlaa nguur gi. Hmm. day tëju ak sëñ sëñ sëñ. sëñ wax ak moom lu kenn dul dégg xam nga. Macky Sall bu soxlaa nguur gi day tëjoog. sëñ Babacar sëñ si Abdou. sëñ Babacar si Abdou. yal na yàlla sëñ Babacar si Mansour. Mm-hmm. xalifa yal na yàlla guddal fanam may ko wér. may ko Serigne Mountakha ak kilifa yëpp. Mm-hmm. xam nga kon moom tamit bu demee ba soxla beneen affaire. Mm-hmm. te tëjuwul ak ñooñu. man damay gis ne kon yaakal ko soos. gars yi bëgg nañ rek ay dérapage yu fi am. mais kilifa boo ko soxlaa da dem xam nga moom dong mën na dem. mu bañ a am rëmbalement mu bu dee dafa am situation bu nit ñi yëgul mu expliquer ko kilifa yi kilifa yi kenn gënu leen bëgg réew mi bu ko defee solution dina am parce que ñoom Sénégal rek la am. Macky Sall day dem <laughs> ku fi ku fi jugee président de la république am nga kër France sunu xalifa yi amuñu kër France amuñu kër États-Unis amuñu kër fen fii lañ juddoo fii la ñu jàngee fii la ñu amee lépp kenn gënu leen doon patriote réew mi dong la ñu am. kon bu dee am na loo xamante ne lu dëgg la lu wër lu nekk ci biir yu am ay danger na dem ba ci ñoom comme ba mu soxlaa réew mi ni mu toogee woon noonu ci tànku alaaji baara yi ñuy wax mu sëgg mais noonu tamit la war a demee ba ci xalifa yi ne leen danger bii moo xew bis bu leen waxee lu leer <laughs> ñoom ñoom it xam nañ parce que ñooñu intellectuel mënu fee jaay intellectuel ba garaaw garaaw lu ba ëpp ñooñu tawxiit wala ba ëpp leen xam-xam hmm. waaw parce ñooñu yàlla may yàlla da leen may ay nit yu tarbiyu lañ yu xam réew mi juddoo fi yaroo fi màggee fi musuñu móodu móodu ji musuñu jàngi musuñu def dara kon ñooñu wax ak ñoom méttiwul. méttiwul pour man biir yi ngay dégg yëpp nii parce que ay waxu sànni la rek. ba corona waaw corona bi est-ce moo tax ak yooyu corona bi dañ ne comme feebar buy wàllel la. waaw te loolu da ab dajaloo la. waaw léegi ne président dem wéetoog xalifa yi waxtaan ak ñoom yóbbu ay boroom xam-xam. ay médecin chef directeur hôpital yi fi nekk nga xam ne ay taalibe lañu ñu tey boo demee Touba sëñ Sëñ Mota ñi ko wër ay taalibe yu ay kilifa ay médecine ay médecin yu mag ñu ngi ko wër xam feebar bi ni mu demee Macky Sall na leen sélectionné ànd ak ñoom ñun demee expliqué kilifa yi nga xamante ne tamit ay médecin la ñu nekk ci ay hôpital ah di xaritu xalifa bi Tiwaawan <laughs> mu dem ànd ak ñooñu dem expliqué kon ñooñ dinañ génnee solution mais bu dee da nga bëgg a toog nee rek pale rek di sànni ay kii di génn ay ministre di génn naan nii nii nii est-ce que duñu annulé lii est-ce que duñu annulé dañuy yëngal ay xolu jàmbur rek ndax nit koo xamante ne ba mu juddoo ba léegi mi ngi màggali événement général am la bu déggee loolu dañuy indi ay xeex di nekk ñii nii wala kee ay affaire yooyu mais boo demee fa nga war a dem président jóg ba mu soxlaa réew mi ni mu defoon mu dem def ko ak xalifa général yi ñooñu dinañ comprendre bu dee am na danger général da dégg ay wax yoo xamante ne warul indi bir wi di indi bir indi bir wi. ndax doxalin bi moo baax. moo baax daal. Mhm. am na solo léegi. Euh, parce que waxtaan moom li ci des ci wàllu sport bi. Mhm. ak saal beeg diin yi dañ koy euh, dañuy bàyyi ba gis ba nga ba ba loolu génn ba pare ba image yooyu ñëw ba pare. Mhm. alors ñu doon continuer nag ci sport bi carrément diin parce que la bëriwul lu ñu lay gis ci ay diin ak ay saal léegi boo amoon benn message booy booy booy booy booy tege foofu sa baaram ban lay doon en attendant ñu xaar li des ci kanam. waaw sant yàlla rek di wax rek ni ko sunu sëriñ bu baax bi Pape Malick si di wax nee na le monde xaw ma lan tremble xaw ma lan. Mhm. ku gis adduna bi ni muy doxee daal xam ne ñu ngi si danger. Mhm. adduna bi xaw na jaxasoo rawatina sunu réew jeunesse baa ngi dem sans corona waaw tali bi scooter yi ñu ngi yóbbu nit ñi comme. ay malaakal moo ci sax jaale wale papa Yade. xam nga papa mhm. Yade sunu mbokku mbër boobu di jeune xam nga gëm boppam safoon xorom. commencé fees dellu xolu nit ñi gis nga détail xam nga dimanche passé fii ñaari boy fii lañ jugee di dem usku euh, euh, car rapide yéeg leen ñaari scooter xam nga yoo jeunesse yi rek ñu conscient xam nga di wax nit ñi tamit réew mi daal doy na waar. Ah, dama doon même koo xamul da ngay dugg Facebook rek gis rip rip rip lépp jeune lépp jeune na waar. te xam nga loolu tamit dañu war a tamit man loolu depuis daawa ah, la loolu dama naan ko. mais man gars yi ñu ngi wax ni dee affaire yooyu mais jeunes yi li leen di rey lii bu doon dëkku tubaab dinañ toog seetlu mais lan moo tax malaise malaise malaise malaise man daaw xam naa ay ñoo xamante ne ay jeunes reer seen kër génn dem restaurant daanu dee ñu naan malaise malaise ñu dul jeex yooyu tamit médecins yi war nañ mën a xool xool tamit lan moo yóbbu nit ñi bu dee alimentation bi fii dafa am lu ñuy utiliser jeunes yi dafa am lu ñuy utiliser loo xamante ne bu dee si chicha bi la nekk wala dafa am fedd fu mu nekk tamit ñu wax parce que bu doon tubaab la ko def gaa yaa ngi koy kii waaw yi daal moom bu doon tubaab dina si def moom taxaw seetlu pour xam lii lan moo koy dinañ xam jeunesse bi lu leen di rey nii comme ay weñ xam nga doonte nag kuli ruux min amri rabbi yàlla nag moo yor ruux mooy yóbbu mhm. mais tamit àdduna yàlla daf ñu ko fi bàyyi tamit pour ñu utiliser sunu ay xel utiliser ak ay ay pexe. ay pexe waaw. pour mën cee génn loolu moom ñu ngi ciy lancer appel kilifa yi ñu xool jeunesse bi sàmm parce que jeunesse nag mooy réew. mooy réew waaw am na solo léegi dañuy teg suñu baaram foofu ba ci kanam mën nuyu ki nga xam ne nii mooy madame Diouf non madame Hébert. madame Hébert ah, Céline Céline Céline Diouf ah. waaw ah, moom madame Hébert béréb bi. nga maa ngi koy nuyu. waaw kenn la ci man. waaw moom mooy jabaru Patrice. waaw moom sama waay la Patrice moom ku ko xam. waaw yaakaar naa ñëpp léegi xam nañ ko. Mhm. muy nit koo xamante moom waxuma la dara sax xam nga li waykat boobu naan balaa nga xam ki bëgg nga nekk si ay tolof tolof waaw ba mu amee defet moom li muy def si sama làmb boo ko xaajee dix fois amul sax keneen ku ki ci def loolu ndax moom du ci bañ dara lépp la ciy def daal te ba ma daanoo moo njëkk taxaw ne ma man mii sax liggéey bi may def nii muy hôtel dama ciy daanu waaw ah, des fois nga am ne ma doomu aadama du ñàkk maanaam lu toujours jàngat lay doon ok ne ma reculer pour mieux sauter maa ngi taxaw. loo wax loolu laa wax. xam nga loolu nit ku la ko wax te bokku leen xeet. làmb intéressé wu ko bëriwul deful. gaa yaa koy kii. waaw daal gaa loolu moom tubaab. waaw dina ci def moom taxaw seetlu. pour xam lii lan moo koy dinañ xam jeunesse bi lu leen di ray nii comme ay weñ. doy na xam nga doonte nag. xulir ruux min amri rabbi yàlla nag moo yor ruux mooy yóbbu. mais tamit àdduna yàlla daf ñu ko fi bàyyee tamit pour ñu utiliser suñu ay xel utiliser ak ay ay pexe. ay pexe waaw. pour mën cee génn loolu moom ñu ngi ciy lancer appel kilifa yi ñu xool jeunesse bi sàmm parce que jeunesse nag mooy réew. mooy réew. waaw am na solo léegi dañuy teg suñu baaraam foofu ba ci kanam mën nuyu ki nga xam ne nii mooy madame Diouf madame madame Hébert. madame Hébert ah, Céline Céline Céline Diouf ah. ah waaw moom moom madame bi. xam maa ngi koy nuyu. waaw kenn la ci man. waaw non moom mooy jabaru Patrice. xam. waaw naa ñëpp léegi xam nañ ko. Mm-hmm. muy nit koo xamante ne moom waxuma la dara sax xam nga li waykat boobu naan balaa ngay xam ki la bëgg nga nekk si ay tolof tolof. ok waaw ba mu amee defet moom li muy def si sama làmb boo ko xaajee dix fois amul sax keneen ku ci def loolu. ok ndax moom du ci bañ dara. lépp la ciy def daal waaw te ba ma daanoo moo njëkk taxaw ne ma man mii sax liggéey bi may def nii muy hôtel. dama ciy daanoo. waaw ah, des fois nga ne ma doomu aadama du ñàkk. maanaam lu toujours jàngat lay doon. ok ne ma reculer pour mieux soo maa ngi nii taxaw. loo wax loolu laa wax. xam nga loolu nit ku la ko wax te bokku leen xeet. làmb intéressé wu kom bëriwul deful